asalaamaaleykum rek euh, ñëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan seen euh, online TV bi di kontaan trop si dalal gi ngeen ma dalal di wax salaamaaleykum àdduna tey li war a suñ déplacement comme ni nga ko waxee si début bi rek mooy xaj na sunu signature bi nga xam ni mooy sunu combat ak euh, Ama Balde mu doon loo xam ne c'est première ba combat bi taxawee ba léegi moo tax ñu déplacé wu ñëw pour assister ko. Pape Diouf mm-hmm. di président ba léegi man mm-hmm. club Xarañ famille Gambia Pape mm-hmm. lan moo la dugal ci euh, làmb ba tax nga taamu ki nga xam ne mooy Modou Lo nekk président fan ci club parce loolu yombul dëgg la lan moo la dugal ci làmb lan moo tax aussi nga tànn Modou waaw làmb moom euh, xañ na suñu cosaan la euh, ñun ñëpp dañuy judd di ko foye bi nekkee xale mooy tax amour boobu noonu sénégalais yi a gambien yi sax ñu am ko ci làmb bon amour boobu moom moo nu topp ba nu doon mag xaj na di suivre làmb di suivre tamit Modou mu doon xale boo xam ne nii am na jom am na fit bon am na loo xam ne teel nañ koo gis ci moom ba tax ñu taxaw Gambia taxawal fa xereñ famille bi euh, gars yi doy loolu tamit jiital nu ca parce que du loo xam ne yow yaay ñëw jiital sa bopp mais gars yi ñoom ñoo lay tànn xam ne xaj na yow am nga amour bi te am na foo mën a yóbbu mbooloo mi moo waral ñu tànn la mu nekk une dizaine d'années nag boo xamee ne boobu ba léegi ñu ngi cheminer gars yi ensemble daal noonu la noonu la juddoo daal. vote la sax parce que euh, dama ci profité sax euh, gërëm Matar mi nga xam ne moom mooy moo doon ki nga xam ni moom moo ko njëkk a taxawal dëkk ak Modou Lo yaroo ndoog moom ci parcelle fii nekkoon Gambie aussi man moom mu njëkk a sax. wax ma lool mais ne ko effectivement loolu di intéressé na ma bon ñu faloon ko moom tamit bi mu demee ba en certain moment ci la gars yi defaat vote bi ñu defee vote xam nga ñu ma doonoon candidat bi après ci la jël daal affaire yi ci loxo di ko doxal ba léegi nii suñu relation defe naa 2010 la parce que ci leen taxawal Xaragne Family mu doon relation frère ak frère parce que Modou Lo ak euh, peuple gambien doonatul affaire de supporter ak mbër ay frère parce que loolu moo waral ba xañ na bu ñu waxtaanee ba ci biir dinaa la indil yu bëri yoo xam ne ni moom moo ñu lié ak moom ba lu xew ci ñun buñ ko ko yëgalee mu def déplacement ak gars yi nga xam ne ñoom lay àndal ñëw seet si ñu kon loolu doonatul affaire u fans affaire de famille la. kon des fois am na foofu. waaw seen lien. Mm-hmm. nekkatul mbër. ak supporter famille la léegi dëgg la dëgg la parce que gis nañ ne Modou Lo li muy ñëw Gambie day bari dëgg la te respecté na Gambie yoo xam ne macha allah mm-hmm. comprendre mm-hmm. kon tey moo tax ma ne lan mooy seen lien tey mm-hmm. ak Modou Lo waaw lien bi moom comme ni ma la ko waxee lien familial la waaw famille moom dafa ëmb lépp nag famille lépp a ngi si biir moo tax boo ko tënkee foofu rek day neex a comprendre waaw waaw ba léegi rek ñëwaat ci euh, mën ñoo génn làmb làmb lañ nekk ba léegi rek Modou Lo ñu gis ne euh, takkusaan bu nekk tëgg ngeen ko. Mhm. takkusaan bu nekk bëre ngeen ko dimanche bu nekk bëre ngeen ko. Mhm. bii ngeen am bànneex bi ngeen am naqar. Mhm. yaakaar naa li ngeen am naqar bariwul. li ngeen am bànneex moo ëpp. mais ñu jëm ci combat boo xam ne nag sénégalais yëpp adduna yëpp dañ ko bàyyi xel. ki ngeen taseel muy xale. ba pare juddoo biir Pikine ba pare papaam doon bëree ay magam doon bëree macha allah mu am lu mu mel. def fi encore jaloore. ñu dem jox ko ki ne mooy xarañ loolu. dégg xarañ xam mm-hmm. ce que combat boobu instant dama jàpp ni ndaanaan yàgg na noo dajeeg moom parce que xereñ balaa feeñ sa xereñ te ci lu mu mën di doon il faut nga prouver te doo ko prouver ci ay cuune il faut nga dajeeg ay ndaanaan di def ay preuve ba nu ràññee sa xereñ xereñ boobu moom moo ko topp ba ba mu dajeeg Ama Baldé affaire de xale bi ngay wax tamit dama la ci corriger tuuti rek même génération la. non ñoom ñaar ñi eh, ay si déglu ma rek déglu ma rek. non <laughs> xam nga daje nañ mbapat ñoom ñaar. waaw déglu ma rek loolu preuve la si ñoom ñaar ñoo jogandoo ñoo jogandoo ñoo bokk génération. yaa ngi dégg. waaw xam nga loolu waaw waaw loolu mën naa la ko nangul parce que lépp loo gis rek am na premier am na deuxième. nangu na ni ñun ñoo nekk premier premier googu tamit dañuy ñaan ci soiru combat bi mu prouvé waat ko comme na mu demee woon rek delloo buum sa booy booy parce que mënunoo jaaxal combat bi parce que gis nañ combat bu ne combat bu ne ñun sëgg nañ ko. mais bi diis na parce que. xamul lu mu diis. compétition moo noonu ngay wuti mënul oyof parce que da ngay wut sam ki nga ko seqal. di wut te wut boobu muy wut noonu da ngay jàpp ni moom tamit am na lu mu bëgg ay mbokkam am na lu mu bëgg moo waral diisaay bi xañ na man foofu rek laa jàpp diisaay bi mais mënu ma koo jàpp ci beneen. mais Modou Lo ñu Modou Lo Modou Lo ku dul jinne jàpp na ko. non mais xale. xale non ban xale. ay génération non génération génération yi ñoom ñi mu bëreel ndax Ama def leen ëpp doole Ama ëppul doole Lac de Guiers. Ama ëppul doole Lac de Guiers. mais fa loolu du ma ko mos a nangu. ëpp ko doole non non non. ëpp ko doole. Mhm. ëpp ko doole man làmb ji mën naa la wax sax a na Ama euh, Lac de Guiers moom noonu mën naa ne kenn ëpp ko fi doole. waaw mhm. Bombardier beneen kaala donte dañ fa jël defet mais xam nga ni Bombardier bala ñu faa jël defet fan fa ñu yegg ak moom ñim fi daan yëpp yegg noonu moom foofu kon bul wax bul bul wax ni maanaam moom moo ëpp doole non mënul ëpp doole mënul ëpp doole. non askan wi xaj na ay ñaaw ñi féeteeg moom quoi voilà non ñi féeteeg moom la mais ñi féeteeg beneen boor bi moom du nangu lool ñi xam làmb tamit yàgg a suivre Modou Lo xam na du nangu lool parce que nangu na entraîné fooyewut boppam te xam na fi mu jëm waaw li ko indi roi des arènes du hasard liggéey la comme nan daan def rek ak yokk ci tamit ay yeneen i bagage parce que dama la bëgg a xamal sax biir xereñ famille boobu dafa am ay entité yu bëri yoo xam ne dañ ko xe dañ ko créé waat si biir xereñ famille ba mu doonee fans club ba pare dañ ci créé xereñ wrestling school mu nekk écurie. xereñ wrestling school. waaw mu nekk écurie. Mhm. sunu tête de file bi. war a des arènes u Gambie kon xam nga ni xereñ famille doonu lu ndaw ah, Gambie. que boo demee ba sa sa tête de file war a des arènes kooku événement la. événement voilà am nañ fi xereñ charité. Foundation kooku boo gisee ñu créer ko Covid bi bi ñëwee nii xañ na nit ñu mun noo dajale te ñun am nañ habitude di def ay marmite du cœur chaque weeru ah, waaw marmite du cœur waaw. xañ na dinañ leen si invité bii nii parce que euh, yëkkati nañ lockdown bi. ba fi mu ne nii nit ñaa ngi dem ci seen i activité bon bi bi lockdown boobu amee ñun dañ créé waat xereñ charité maanaam dajale suñuy fonds di dem si jum euh, daara yi. di dimbali ndongo daare yi parce que ñëpp ñu ngi leen tëjoon xañ na am nañ ay manquement am nay daare yoo xamee aussi ñu ngi leen di tabax seen borom amul doole soxla ciment soxla ay zinc ak ndox yooyu yëpp dugal nañ ci suñu loxo tamit ba waral Xereñ Charité di dem mu nekk beneen affaire boo xamee tamit loolu lépp si biir Xereñ famille la juddoo waaw am na yu bëri yoo xam ne dañ koy créer ci biir si social parce que léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy am problème feebar nekk hôpital laaj yenn somm yi ñu dañ siy dugal seen loxo si réew mi waaw lépp loo xam ne mu ngi yëngu ci biir Gàmbi Xereñ Family dafay dugal loxo na dinañ gën a yaatal yëf yi nga ñëw gën a xam li nga xam ni noonu la ñuy doxee parce que doonul ay ay mag buñ dajaloo xañ na pour sport war nañu mën a xool lan moo leen di jëmale ci kanam xale yi nekk si biir aussi lan moo leen jëmale si kanam waaw yooyu yëpp ñu ngi koy créé si biir xarañ famille kon xarañ famille daal mën nañ ne yëmul ci làmb kese non comme li nga wax rek lay dox dëgg la ci ndimbal lay dox booloo lay euh, lay dox itam loolu mooy ak écrit bi aussi nga xam ni waaw loolu tamit da ngay waat affaire bi si bi làmb parce que làmb la ko moo wara ñu jëlaat ñu dugg delloowaat suñu loxo foofu noonu créer écrit boobu noonu ay boy yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci sport bi nekk fa di entraîner di bëre mu doon loo xam ne tamit dañ koy dañ koy participer ci làmbu gàmbi waa parce que xariñ famille gàmbi la juddoo ko waaw affaire Gambie la. la. Mhm. Euh, yéen a euh, Euh, roi bi instant yi est ce que ñu leen ne Ama Baldé risque na ci yéen mun leen làmmal feneen fu gën a nooy mais yow mbër mbër mbër champion bu toll ni Modou liggéey ba dikk roi war ta mën a ti danger parce que ay danger la jéggi ba egsi fii non non c'est vrai ay danger la yegg jéggi ba egsi fii Ama mënul nekk danger booy roi a calculer bu baax non ragal moo koy def non il faut nga nekk tapette pour calculer yow fii ma jëm dama fay am ay inconvénients wala ay tolof-tolof il faut nga nekk ragal pour xalaat li ñuy wax ragal boo takkee bëri sax xel ma di gis Modou du genre yooyu Modou du tapet gars yi ñu bëri dañ foogoo ne Modou bu jëlee roi bi day zappé booy bi dem wuti fu nooy pour gën a maanaam lal ay basangam muy nooy non du genre boobu man du ma du ma man du ma faral ragal bu ma gisoon loolu ci moom bon ba quitté naa ko bu yàgg mais dafa am ay qualité yu nekk si moom yoo xam ne nii dama ko apprécier moo waral ma topp ko moo waral ñuy sonn ci moom tamit mais di di tànn fii non non non askan wi combat bi leen bëgg moom rajo bu ne ak télé bu ne nekk na fa di taltali di ratatati ngir bëgg ñu may ko xaalis mais Modou tamit il est généreux baal mu may ko xaalis il est généreux du ko du ko soxoree këram gi mu war a yeggaleeg ay bagaasam yi mu war a yeggaleeg li mu war a am non nan ko ko may. loolu yàqul suñu carrière dara baal ñu waaw ah, comp ci xéewal gi ñamal ko parce que moo waral coow li coow li ngay gis ni bëgg a bëre kese rek non non day am yenn koom yoo xam ne nii da lay wóor ni waa jii rek a ma mën a may xéewal gi pour ma mën a yegg fii comprendre nga mooy waral nga di ko kar fu ne buntu kër baak fu ne ngay kar di wax di kii léegi Modou noble la il est généreux ni muy defee ay social noonu la defee social jox Ama Baldé combat bi social la. lan. ah, ah eh. la ko wax. ah mais social la bien sûr non yabu ma ko. mais parce que xam nga xam nga dafa am yenn topp yoo xam ne boo ko toppee ni dangay dem ba sa personnalité. sa ah dafa dem ba amatul classe. dafa dem ba amatul classe ci laaj bi. sabilillah la ko doon wax kon daal. ah absolument absolument sabilillah la. non Pape Diouf Pape Diouf yaa ngi tamat ko damay wax li nekk rek loo xam ne sénégalais yëpp ñoo koy suivre ensemble. kon ko baal ñu ñamal. ko rek. moo ko rek Modou Modou il est généreux. mais mais <laughs> gis nañ Modou macha allah def na fi dimanche bu nekk li ma waxoon ci mais gis nañ ne mbër yu mag yi léegi bu ñu nekkee ci dañuy calculer seen combat léegi gis nañ euh, barki démb combat bi jàll diggante Ladage ak ki nga xam ne mooy sama seet ñoom ñëpp mbër yu mag lañ mais bëri amu ko loolu daanaka ba ñëpp bàyyi jëppi làmb est-ce que moo itam bu ñëw di calculer ndax bañ a euh, perte li nga xam ne mooy euh, problème yu yow Modou mas nga gis benn kombam boo xam ne non waaye dañuy waxtaan tamit échange la quoi ah. mosoo gis combat boo xamee Modou dafa doxalee comme gars yi ni doxalee dem waa jooju nga xam ni mooy Lac de Guiers daje nañ fekk moom ñaari yoon bu ci ne action ya fa xew yëpp mu doo gëdd mu daw génn saago yi dem na ba bàyyee ko ngembam jox ko wet deuxième combat bi sax mu ngi daa wax ay su ma joxee wet ñu jox ko wet jox ko tànk jox ko bopp jox ko lépp deful dara kon dafa mel ni loolu moom habitude am la quoi moom noonu la bindoo quoi waaw rasu moom yàllaa ko ko binde yaa ngi dégg kon Modou moom du genre boo xam ne nii day bëri ta te Modou yow tamit mooy roi de arènes roi des arènes du def li non roi des arènes du def li Hmm, moom li mu war a def bu bés waa bu ñëwee dina ko def te kenn du ko jéppi. kenn du ko jéppi kenn du jéppi Modou. kenn du ko jéppi loolu ci deret bi la. li nga toogaat bi absolument xam nga bu neexee yàlla. bu neexee yàlla dañuy waaw yal yàlla def bu ñuy waxaat. Mhm. ñu waxe ak mbégte. ah waaw na ko yàlla def may ñu ndam lu sedd guy. Mhm. ci kaw amaa Baldé. Mhm. ñu jàpp ko daan ko dem ñibbi. waaw parce que. noonu la war a demee daal. incha moo ñor tey moo tax ñu toog seen président. dëgg hmm. dañoo nekk Covid. Hmm. mais est-ce que xarañ tamit yi ñu doon préparé combat Modou Lo. ñu jógee Gambie def ay cas ay photo est ba léegi pare nañ ko combat bii nii pour def ko. xarañ famille mosul ñëw combat Modou Lo muy am régression ci ñi ñëw fans yi ñëw saa yu ñëwee lu yokk la te Covid bi ku ne xam ne ni àdduna bi yëpp ñoom ñoo ko bokk dund bon dinañ jël suñuy précaution yi ñu war a jël. ci si ay gel yoo xam ne dinañ ko jënd ak ay masques yoo xam ne dinañ ko jënd distanciation bi tamit dinañ ko respecté ci biir bis yi nga xam ni moom leen ñuy indi parce que ku xam Gàmbi sax ak seen i bis xam ne ñoom tàmm nu toog xat-xatal yooyu ci seen i bis waaw kenn ku ya ngay toog sa place xam nga am ne loolu yàgg na foofu noonu comprendre nga loolu dinañ ko respecté ñëw si combat bi bëre Ama Baldé daan ko ci kattan yàlla dellu gaam yi si kàttanu yàlla. dellu mm-hmm. ok ñu lay wax rek dafa mel ni am na suñu benn xarit bu fi toog macha allah. di mm-hmm. ko baax. bu mm-hmm. moo tax. muy gan Babacar Xarañ naa du ma ne Sénégal mais àdduna yëpp xam ba léegi mu am euh, vraiment. lien bu nekk ak Modou Lo. comprendre nga. Euh, euh, lan ngay wax ci moom ak seen xamee kañ la. Babacar bi ñu comme ni ma la wax rek. depuis ñuy ñëw combat ma bëgg la seedeel loo xamee si moom du présence sam moom moo tax mais nit ku baax la nit ku fonk gambien yi parce que day ñëw dinu ñu seet si te gis na ni gambien bu jógee Sénégal bu jógee Gambie ñëw Sénégal Babacar dina la teral dina la dalal dina la gunge dina la jox sa waaw voilà très bien mu doon loo xam ne nii nag du du loo xam ne nii da du loo xam ne nii daf koy tricher mhm. parce que am na yooyu ak mbaax boo ko tricher mhm. dina am bés mu nga maar nga maar quoi wala ña ngi koy defar soof la mhm. mais dix ans et quelques defe naa du loo xam ne nii douze presque sax du loo xam ne nii nit ki mën na cee nekk rek di tricher te moom relation bi mu am ak ñun moom la am ak jigéen ñi am ko xale yu góor ñi ñëpp ñëpp jàmm la am ak koo laaj biir xarañ famille Gambie xam na Babacar Touré ci eh, maanaam teraangaam ci boo ko fekkee fii ñun dañuy jógee Gambie ñëw combat crédit ku ko jàmbat mu dem jënd ko ñëw indil ay t-shirt da print di ko may fans club bi di leen defal ay teraanga ku ciy dem ku ne am ku ci ne mën ngaa wax ni lii baaba ko moo ma ko jox mu doon loo xam ne nii nag xam nga du hasard quoi vraiment dañ ko ñaanal rek man li ma koy wax toujours mooy yow da war a nekk milliardaire boo nekkee milliardaire ñun ñu noppalu sax fayu bis yeeg coono yi nga xam waaw te te incha allah bu ko doonee di nga xam li ma la wax waaw loolu moom xam nañ ko ci moom vraiment ku baax la fan su Modou Lo ku teey la ku dal dañuy seetaan bu buñ paree dem ñibbi mais pour yenn yenn yenn yenn yu yenn yu rabe yooyu noonu bokku ni ci daal nit ku nekk say sa fans yow la ñuy nuru ni nga men ëppal rambax di telli telli noonu rek lay say fans di men quoi waaw te yooyu xañ na beneen bor ba leen koy xalaate mais du suñu Badou président sénégalais Gambia man dama naan sax Gambien nga <laughs> ndekete Pape Diouf Sénégal mais dafa yàgg Gambia waaw vraiment hmm. te Sénégal ak Gambie yaakaar naa benn bopp la. tey ñu gis ay day yëngu ci ay euh, euh, tëgg mhm. la ko wax sax xereñ promo xereñ promotion boobu ñun ay am nañ licence pour tëgg làmb. Ah, waaw boobu euh, ñoo tëggoon drapeau Modou Lo. mais nee na grand. 2010. drapeau 2000 2000 2014. Gambie waaw ñoo tëggoon drapeau Modou Lo. làmb waaw ñun am nañ licence. mu dama la fàtte wax xereñ Rasoulin School la écurie bi xereñ promotion moo à licence bi ak xereñ charité mi nga xam ni fondation la pour charité pour social waaw bokku la xereñ famille bu mag bi nga xam ni nag c'est la famille quoi waaw tëgg ko waaw tëgg événement bien sûr parce que ñu ngi am ñu ngi amee sunu licence te dañuy yëngu ci làmb te Gambie gépp reconnaître na loolu xam na nu ci làmb te duñu yàq làmb dañuy defar làmb ñu tëddee tuddee ay drapo ñuy ñëw taaral bés bi ah indi fans yi ñoom ñëpp ñu dugg VIP lamb ju ñu tuddee duñ dugg beneen fudul VIP daggaloo ticket ñëpp jàppale promoteur parce que lamb loolu la quoi il faut nga jàppale promoteur yi moo tax mu doon loo xam ne nii defe naa ne am na drapeau boo xam ni sax jamaïcain damay profité ci occasion bi tudde nañu ko bu lamb ji ubbee incha allah dina doon loo xam ne dina jàll ci réseaux sociaux yeeg ci kii yi te ñu ngi koy waajal bu baax parce que moom kenn la ci ñun quoi jamaïcain waaw kenn la si ñun sunu frère la suñu lépp la sama nekk bu masaa ñëw fa nekk toujours umpalewu ma ak moom dara c'est un frère waaw kon boo amee lamb moom tamit delloo nu njukkal boobu dañuy ñun tamit dañuy mobiliser wu baax te ñu ngi koy waaj aussi Euh, sama dernier mot da nga wax léegi ne ma Pape Diouf da nga foogoon Gambien la waaye Sénégalais la Sénégambien la damay profité ci occasion bi di lancer un appel sama frère sénégalais yi yi nekk Gambie ak yi nekk fii ak suma frère Gambien yi nekk Sénégal ak yi nekk Gambie ne Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar récemment dégg nañ ay affaires yu ndaw yu fi daw mais yooyu xañ na seytaane moo bëri doole te di ci profito di lancer sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk Gambie di fa liggéey ñu gën a fas jom parce que réew boo fa nekkee ñu ubbil la seeni bunt di la may jabar di la tudde doom teraanga ju ne ñu defal la ko war ngaa rusa dem di def yenn yi ba di fa créer yenn tension yi di rey doomu aadama wala yooyu ci ay sàcc yu mel ni yooyu ñàkk jom la waaw ñooñu nga xam ni ay sénégalais lan def loolu ak keneen koo xam ne da mel ni ñoom di def loolu laay lancé appel boobu ne leen nit day am jom boo demee ci réew pour liggéey bàyyi sa dëkk danga war a fas job liggéey bàyyi fa tamit teraanga parce que man suma jabar gambien la xam naa fa ay doom man gambi ni ma bëgg Sénégal laa ko bëggee bëgguma mu tàkk bëgguma dara yàqu fa ma rek problème bu yaaya jàmbe ba bi ñëpp di dama ni dama rus a dem parce que su ma demee nan laay ñëwaate falaa toog fii bu may dee sax fi laay toog toog ak sama ngor parce que man dama jàpp sama bopp ni dama faa bokk parce que sama deret a nga fa sama doom yooyu man nan fa am lu nekk ëllëg waaw kon waruma bañ Gàmbi waruma ko xeex mu doon loo xamee lance lancé appel boobu noonu sénégalais ya fa nekk laa koy lancé ñu gën a góorgóorlu bien que nag am na ñu am jom ñoo xam ne nii ñu ngi contribuer bu baax si développement Gambie waaw Gambiens aussi nit ñu baax lañ ñoo xamee ñu ouvert ñu nu yaatal vraiment ñun ban man faa am at yin fa ak teranga yin fa am ñu ngi leen di remercier ci loolu di leen ñaan yàlla tamit ñu gën a góorgóorlu rek gën ubbi gën yaatal sénégalais yi parce que ay frère lan benn lan bu Gambie amee problème Sénégal am na ko bu ko Sénégal amee Gambie am na ko loolu daal mooy appel bi nga xam moom laa bëggoon noo jàllale quoi on est des frères benn lan ñoo bokk ndey ak baay.